ñoo gën ci tey nekaay yi xam jot ñu ne daal fukki ak ñett yoo moom nag ak tamit daal ak digganteem ak ay hauts responsable PS ba tey tamit tamit euh, lu jëm nag ci combat Eumeu ak Modou daal Eumeu Sène euh, dana fekk ci yoonam li nga xam ne euh, nga def ci Dubaï Macky daal nag di rafetlu intérêt bi nga xam industriel émirats yi ñoo ko am rek ngir Sénégal euh, loolu nag la fësal euh, populaire moom fësal nag brouillage ay obstruction des pistes et indice dans la traque man daal ñi nga xam ne ñoom lañ taxal wala daal ñi nga xam ne nag jot seen matuwaay nag euh, di def loo daal ay li nga xam ne daal ngir nag seen li nga xam ne moo leen a nag dugal yóbbu leen ci yoon ba tey tamit syndicat yi nga xam ne daal moom ñoom mënuñu régler problème yi nga xam ne mooy audit bi li nga xam ne nag daal ki nga xam ne mooy modulo mbërëm a moom nag mu daal moom noppi ne daal préparé wu ak ci bépp fànn contre ki nga xam ne mooy Eumeu Sène euh, le nag wax ju tukkee ci Nafissatou Diouf départ yi am ci parti de sec moom daal nee ne euh, réew mi daal amul avenir man daal réew mi amul avenir man daal parti boo xam ne nag narta gudd fan moom nag neen daal moom na waaye ñeneen tamit danañ dem euh, li nga xam ne mooy nag Sud Quotidien fësal daal li nga xam ne la SAR maanaam daal la daal sax-saxe wala jaay gu ñu jaay seen kër mhm. seen këru liggéey ka